jërëjëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a fës ci bopp yi nag dañ koy door lu rëy li nga xamante ne rek euh, daal dinay génn nag ginnaaw kàddu yi nga xamante ne rek kii di Ngagne Demba Touré daal dina koy yëkkati nag daal dinay jur rek ay tontu yu saf-saf ci xarala yu wees yi ñenn ci sénégalais yi nag daal dinañu réagir ci anam bi nga xamante ne rek moom la ngañ Demba Touré daal di tontoo moom directeur bu société des mines bu Sénégal daal dinay soutenir que ne nag ñu nekkoon di xeexal Pastef nekk membre Pastef ñoom kese rek ñoom ñoo yeeyoo nag yenn nomination yi eh, ci mbir mu nu mel nag nee na li nga xamante ne moom mooy appel la candidature moom bokkul ci projet bi mu nekk nag kaddu yoo xamante ne rek daal dina wute lool ak digge yi nga xamante ne rek soo excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye eh, daal di woon na koy def laata rek muy toog ci bopp nguur gi maanaam daal bi mu doon amal rek campagne électorale yi ngir dagaan baatu askan wi moom jiite réew mi nag dafa daal di digge woon ne yenn nomination yi nag appel à la candidature lañ mu nekk nag nag kaddu yi nga xamante rek eh, kii di Ngagne Demba Touré la mu wax ak le président de la république waxoon nag comme yàlla ma may yàlla moom sax dafa daal di dem ba naan bu fekkee ne rek météo wala yeneen poste chef de quartier yi mbir mu nu mel nag mën nañ ko def appel à la candidature wa yenn poste yi nag ñu nekkoon ci parti Pastef bii doon xeexal parti Pastef nekk ci membre ñoom ñoo ko daal di yeeyoo muy kat yi nga xamante ne rek kii di Ngagne Demba Touré daal koy wax nag ci déclaration ci réseaux sociaux yi nag ginnaaw kaddu yi nga xamante ne rek jot na ko yëkkati rek ñu ngi réagir ci anam bi nga xamante ne rek moom la ñu toggee ñii di pro yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy askan wi daal di nañ ciy joxe nag yenn message ginnaaw naw yu doy waar yi nga xamante ne rek kii di Ngagne Demba Touré daal di woon na koy yëkkati jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar.